foofu xam naa ne dinaa leen xaw a kii décevoir tuuti parce que man ay natt ñetti weer ay cent jours ay nangam nangam euh, non beneen beneen beneen beneen sa lunette yi ñu doon xoolee mm-hmm. li fi politique de ni fi politique doxee mille neuf cent soixante ba tey lunette yooyu dañ ko war a summi sol yeneen lunette mm-hmm. pour di mën a xool ak di apprécier li xew ci réew mi euh, régime bi fi nekk ñi nga xam ne ñoo ko yor ay ndaw lañu euh, le président Faye est de quatre-vingt-deux defe naa. quarante-quatre ans. mille neuf cent quatre alors euh, le premier ministre Ousmane Sonko de. 74 74 74. Hein? 74 oui. voilà euh, mësuñoo jaar ci ay gouvernement et cetera et tout donc compte ay amuñu ay compte à rendre par rapport ak yu bare bare bare yu fi xew xam nga ñun ñoom li ñuy wax nii ak di ko xeex ñun ba ñuy am vingt et quelques lañu ñu commencé woon di ko xeex souvent gars yi dañuy wax mm. fan ngeen toj ma ne leen ñoo toj parti unique rajo <laughs> unique télévision unique pensée unique ñoo ko toj mais nag toju ñu woon tout à fait mm. palais présidentiel mm. euh, euh, giri yu palais présidentiel c'est-à-dire on n'a pas pris le pouvoir ñoom ils l'ont fait donc tey et dañu ko annoncé li ñu nar wax nañ ko vraiment wax nañ ko nag waaw wax nañ ko avant wax nañ ko après parce que aussi wax avant mën nga wax avant lu la neex tu prends le poir tu fais autre chose mhm. alors ñoom on sent on sent que lañ doon wax fas nañ ko yéene mhm. est-ce que dina réussir wala du réussir c'est pas donné d'avance oui. du tout tout à fait mais soo xamee ne yow ñoom jël nañu xam nga même diine lislaam dañ la wax loo ciy def dañ nga ciy jiital yéene su yéene ji jiitu du sotti donc wax nañu jiital yéene euh, ça fait soixante ans d'une politique boo xam ne mësul nekk au service du peuple sénégalais nañu waxante dëgg c'est vrai il y a par-ci par-là euh, mais fondamentalement euh, les politiques n'ont pas été conçues pour ça la preuve boo xoolee tey le niveau de corruption mmh. yeah. Euh, les rapports yi am ak yenn pays étrangers yi et cetera mm-hmm. ngay gis ne des na lu bare bare bare donc mm-hmm. euh, d'abord ñun boo bëggee changer réew bopp yi moo war a jëkk a soppiku. comme disait Abdoulaye Wade. dama daan wax toujours ne problème mu Sénégal. c'est pas principalement tali yu toj. hôpital yu amul garab école yu kiiwul nangam déedéet suñ problème principal mooy sunu bopp yii mu soppi ko. Hmm. même ci euh, alquran yàlla da la koy wax. inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim maanaam bu ngeen soppiwul seeni taxawaay. du soppi seen nekkin. tout à fait. donc am na ñoo xam ne ñi ngi xoole régime bi en terme de ah jox nañ leen léegi noo ngi toog ci seetaat loolu mooy toog muy dox loolu mooy toog muy dox non bu dee ne jox ngeen leen ah non ñëpp dañuy war a taxaw ñun ñëpp nag jàpp ci ku ci ne seetaat sa taxawaay na nga taxawoon nga seetaat ko ba pare nag di leen bàyyi xel ñoom ci seen bopp ñu xam ne gaa yaa ngi leen di. voilà loolu su amee vraiment sànq maa ngi wax ci sedd CEDEAO naan dina dox te te te yàggatut. Mm-hmm. kon réew mi dina tegu ci euh, raay.